Sénégal moom du ko mës a légaliser leen bi la yëglekaay lu jëm ci rejet bi ñu amal nag ñeel candidature bu Karim Wade ak Ousmane Sonko nag ñoom seeni partisan ba nëgëni si mëne suñ ko wanaasu ña ngay dal ci kaw conseil constitutionnel Walf Quotidien nag dellu soit ci recours bi nga xam ne rek ñii di waa parti démocratique sénégalais bëgg nañu ko amal ca cour de justice bu CEDEAO taxaw seetlu jot na nag ngir ñu càmbar lan mooy jafe-jafe yi ca PDS tey jii ci la yéenekaay bi di l'observateur xëy àddu ci xëtam bu njëkk ñaari élection présidentielle mi koy amal ci réewu Sénégal te candidat bu parti démocratique sénégalais bokku ca mu fekk jamono joojee nag libéraux yi di woo seeni ñooñ ngir ñu daal di amal ab résistance 24 heures daal di koy feelu ne parti démocratique sénégalais li ñuy sàkku jamono ji rek mooy ñu tas conseil constitutionnel ndax nag amuñu benn crédibilité te it nag conseil constitutionnel amul capacité ngir mën a garantir ay élection yu ànd ak démocratie te leer nañ waa parti démocratique sénégalais ne li ni mel nag dugguleet ñuy amal ay complot ci wàllu politique Karim Wade nag di ko xañ bokkam ci élection présidentielle yi lu ni mel nag du ñu ko bàyyi mu sedd Vox Populi nag ne Karim Wade nag bu bokkul ci yile élection moo ko teg boppam Cheikh Bara yi nag di ancien président bu groupe parlementaire liberté ak démocratie nag ma ngay xam ne ni doomi Abdoulaye Wade ji nag juróomi at mi ngi nii nag ma topp ci ginnaawam di waxtaan ak moom ngir mu daal di nag dakkal li nga xam ne moo di nationalité française ma waaye tamit nag takk soxna soo xam ne fii ci réew Sénégal fekk baax waxee rek mu jàpp ne samay wax mbirum raciste la Cheikh Mbacke Baara Dolli ne Macky Sall nag loxoom laalewul benn yoon ci élimination Karim Wade ci la élection Karim Wade ci boppam nag moom ak Khalifa Sall ñoo bokkoon benn kaat te Khalifa Sall moomee nag tey jii xeex na ba doon candidat ci élection présidentielle yi lum ci mën ci doon daal yéenekaay bi di enquête ne sa Seck moo fas yéenee ndaataa tëllëx ci ñàkk bokkub Karim Wade naka ci la élection ndax moom candidat bu parti réew mi nag mën naa jot ay voix yoo xam ne rek dafay bàyyeekoo ci militant yéenekaay bi jàpp ne moom Idrissa Seck rek mooy candidat bi nga xam ne rek tey jii bépp xalaat boo xam ne rek libéraux yi am nañ ko moom mënees na koo doxal la donte ne nag boobaak léegi ma ngay def ay jéego yoo xam ne rek kenn mëneesu koo qualifié waaye nag ku jege maître Abdoulaye Wade la jamono joojee nag guerre bi moom tàmbali na xaata ca biir parti Pastef le quotidien yëglekaay di xam ne ni nag tànneef gi ñeel Ousmane Sonko jëm ci élection présidentielle yi nag ex Pastef ma ngay xool kii di Diomaye Faye Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye ana moo ci gën a doon profil bi ci bés bi la jour nag mbiicoog mbaaloo gi nag di wéy ba na gëni sii ca biir parti ex Pastef yéene kaay bi ne ab ndaje mu tàng nag la ci waa Lacoste amal foofee ci kër Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye lànk ne du bàyyi candidature am Birame Souleye Diop di xam ne di ñoom seenub candidat Bassirou Diomaye Faye la fekk Ousmane Sonko moom ma nga ne tekk di xalaat ana ban profil moo gën a baax ngir bu ko taxawalee rek ñépp ne gongo Sud Quotidien moom dellu yooyu nag le cas Sénégal en question loolee la yëglekaay bi daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk mu ne Human Rights Watch nag ma ngay dut baaraam Sénégal ci ab rapport mu génnee ci atum 2023 bilan bu mitigé loolee la Seydi Gassama daal di xamle laas yëglekaay moom daal di dikk tey jii ci jongante bi ñuy xaar ci diggante Sénégal ak Guinée bu juróomi waxtu jotee lay doon yéenekaay bi ne jamono jii kay gaynde yi moom taxaw nañu temm ngir wonewaat seen bopp bu baax a baax ca yaakaro yëf yi moom du sedd kan 2023 bi nag ci wàllu football Sénégal ak Guinée tey jii lay doon mu doon nag match boo xam ne rek dina am enjeu ndax nag faaw ñu daal di gagné ngir mën a des ca village bu Yamoussoukro réew mi sport dellu suwaat nag ci jàppante yu metti yaamoon démb ci diggante taskatu xibaar sénégalais yi ak yu guinéen yi nag stade yëglekaay nag dellu suwaat ci jongante tey jii ñuy waajal yéenekaay bi ne ndam rek la ñuy xaar ci yile gayndey Sénégal jeexale yëglekaay yi ak musiba mbaa ba kumba gi xew démb ca Sogas ab xale bu bu ñuy woowee Abdoul Mbaye moo tër ab moromam bu ñuy woowee Abdoul Diaw daal